référence plateforme d'information. yéen Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu di leen dalal jàmm ci sunu jàngat yi tey jile nag ñu fas yéene jublu ci li nga xam ne moo jëm ci saaga yi ñuy nemmeeku jamono jile rawatina ay doomi aadama di ko jël teg ko ci deru doomi aadama ki ci jiitu moom moo di soxna si dina bu daas ay saagam tax nañu fekk ko këram. daal di koy gërbal yóbbu ko ngir ay nit lam ña ñamu doon saaga ñoo yëkkati ay plainte jagleel ko ko loolu bokk na ci li ñu war a jàngat bi ci topp moom mooy ki ñu wooye Liw Faramareen muy waajoo xam ne dañ koy tuddee sax insulteur de Wally Ballago Seck maanaam ci gàttal moom saaga Wally rek mooy ab liggéeyam lii ci lañ bëgg a wax naam sax ñu bare bari jàpp nañu ne yii saa duñu xam ku tooñ ku fayu rek lañu xam waaw xamuñu ku tooñ ku fayu lañu xam ku ci mel ni Liw Faramareen ni ñu ko def ak ni ñu ko gërbalee ci benn vidéo toroxal ko def ko lu ci nekk ba noppi vidéo ko ne ko waxal loolee nag kenn du ko rafetlu ndaxte nit ak dayoo bi ko suñu borom jox bu wàccee boppam ba mel ni nit ku torox bu ko kenn toroxal yàlla moo bëgg loolu nit dañu koy jox daraja jox ko xaqam bi mu moom waaye nag moom su wàccee boppam wàccee darajam moom la concerné bu ko ci kenn jàppale nit nag su demee bay saaga mooy wàcc na yoon bi ko suñu borom tegoon ndaxte yàlla daf ñu bind ñun doomi aadama ba noppi nañu inna hadaynaahu najidayni maanaam dama bind nit ki tàllalal ko ñaari yoon imma shakiran imma kafura maanaam moo xam nga topp yoonu yàlla ba ni coow wutali aljanna walla nga weddi yàlla topp yoonu seytaane lii kenn ku ci nekk am nga droit de ci ségam yàlla moo njëkk ubbi li ñuy tuddee démocratie maanaam fu neex waaye mën ngaa dem lu neex waay mën ngaa def waaye ah man amila saaliha fa li nafsihi képp ku jëf lu baax yàgg nañu koo wax yàlla nee na ñeel na la la wax ñeel na la fa li nafsihi ñeel na kaka moom waaye nag wa man achaa fa alayha soo jëfaatee lu bon waxul ñeel na la de dafa ne ci sa kaw lay këpp ku def lu bon lu ne ak loo mën a def ci lu bon ak kooku yéene jàppal na ci sa la jëmaat lu leer la comme balu teng si rek yaa ngi koy dóor waaye mu ngi dellusiwaat ci sa kaw kon ndax saaga nit dana tax ma gërbal doomi aadama déedéet ndax ma saaga nit dana tax ñu war maa toroxal déedéet nañu ko bàyyi ndax moom toroxal na boppam desa nit ki saaga doomi aadama bu ko deful dara nekk ci yoonam yaayam toog ci ruqam di jaamu boroomam waxul ak kenn demul dikkul duggul ci benn showbiz nga yëkkati ay saaga di teg ci aw deram ndax doomam ji nga xam ne moo nekk ci biis loolu ki ko def moo toroxal boppam déjà kon jarul kenn di ko toroxal lii dëgg mooy nit ku ci nekk nañu ko bàyyeek jëfam ndax su weeteeg bàmmeelam moom kottu la ak i jëfam kenn du fa fekk kenn naan ko maala dimbalee lii mukk ci àdduna lu fa waaye def ci lu baax daa ko xeeb loo fa def ci lu bon lu mu ndaw ndaw ndaw wallaahi di nga ni su ma yégoon duma ko def kon nag nañu xoolaat doxalin yi xanaa xamuñ ne saaga bokk na ci li gën a ñaaw ci jikko yi Sëriñ Tuba dem na sax ba di ko misaal isit tasaabu bi maa takaazu bi ka min ahbayil axsaali la wax demal ci na ju xadaa il bayit baa nga foofu taaje nee na isit tasaabu bi maa takaazu bi saagaante ak di kàccalante maanaam kenn ku ne di kàccal sa moroom kii di saaga kii nee na moo gën a bon ci jikko yi bokk na min ahbahil xisaali bokk na ci jikko yi gën a xebet la wax xebet mooy bon kon lu ma a wattandiku la moom saaga ci biir xasida googee di nahju xadaa il xaaj maa nga fay wax naan wala xadda amurru ala laimu yasubbu nii wa aif summa aqulu laa yaani nii mu ne dama romb ab saay-saay bu toog ci benn ruqam jékki-jékki rek mu daggal ma aw saaga ne ma diw ba mu wuyu ko mun ma sa nangam taan teg ci lu ñaaw ma yëngal bopp bi daan ne kii daal waxut ak man kii dafa juum bu la nit saaga doxaleel noonu yow itam ndax mës nañu gis Wally Ballago Seck mu génn ne diw bu ma saagaatee duma leen ko ndax mës nañ koo dégg mu ne diw bu ma saagaatee saaga leen ko déedéet moom dema nga ci yoonam di liggéey kon ki koy saaga ak la mu jublu ci loolu kooku moom la concerné donc nag nañu góor góorlu ba bàyyi ko boppam na mu toroxalee boppam yitte ji mooy kenn ku ci nekk xoolal sa taxawaay xoolal saw nekkin xoolal yow yaay kan ak li la tax ñëw ci kaw suuf wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun mission boobu loolu la waaye nekkee wu ñu fi leneen lu dul loolu bu ñu fi génnee loolu nag dem ci leneen ñoo tooñ suñu bopp lu ñu dal ci àdduna ñu na lu ñu dal alaaxira ñu na fii du kër nañ ko bàyyi xel ñun ñëpp dañuy wëlbatiku dem suñu yoon ana moo neex ci saaga doomi aadama ngir alalu àdduna ana lan moo neex ci féewatle ay doomi aadama ngay gis ñaar ñu fénqoo nga taqale leen fexe ba ñoom ñaar kenn du ci jaaroo moroomam ak tànk maanaam kenn du ci tudd moroomam loolu nga jàpp ne ndam la bise ngi ñëw ci bis yi daa ko rëccu dafa fa nga koy rëccoo kenn du la ci mën a wallu yàlla nag dafa maandu lool ba du wax mu ngi ne tekk ba mu waxee la pare ca wax ca la muy def kay mooy xaar kenn ku ci nekk sa app lu nekk appam jot mu daal di appliquer la mu war a appliquer waaye yàkkamtiwul dara moom yàlla amul lenn lu mu yàkkamti nañu wattandiku saaga ak la ca aju nañu wattandiku di tuumaal ay doomi aadama nañu wattandiku di féewat la ay nit nañu wattandiku di jëfandikoo loo xam ne jekkul jaaduwul balaa dara xew ñoo war a jubbanti suñu bopp lu tax ñun ñu ñeme suñu borom dañ koo xamut waaye ñemewuñ ko lu tax ñun ñu ragal ñeneen ñuy jubbanti muy police ak la ca aju te pourtant ki ñu war a gën a ragal te war koo gën a fuglu mooy almudabbirul umuur laa taaxuduhu sinnatun wala nawmun lahu du dojjantu bay nelaw te mu ngi saytu lépp kullu yawmin huwa fi sha'nin ba yéefeere ñëwee di laaj yenent bi naan ko waaw sa waa ji moom sa yàlla ji moom wax ñu moom lan la fi nekke yàlla ne ko nee leen kullu yawmin huwa fi sha'nin yàlla amul jot amul temps wu kenn moom suñu borom maa ngi ci lam war a nekk amul lenn loo xam ne am na ca jot mbaa di ca jotantu la muy def def na ko la muy wax wax na ko lenn lu ci nekk àppam la ko wutal saabu bu agsee rek loola jot na kon nag nañu wattandiku jikko yu xebet yu ñaaw yii nañu wattandiku lu bari soxna sii di Nabou Dash nag nañ ko dimbali ci lu baree bari ndax nag Sénégal dangay am xel mu xaw a jàdd ñu gën la cee dimbali nga gën a jàdd nag gën a yéeg gën a aju waaye duñ la dimbali mukk ci xelal la duñ la dimbali mukk ci ñaanal la moo ne am na ñoo xam ne bu ñu toogee fa ñu toog ci seenu mbaax ak seen xol bu rafet ak li ñu defal seen borom buñ ne yàlla yàlla na nga soppi jëmm ji wallaahi mu soppi ko waaye am na ci ñoo xam ne duñ ko sax jéem dañ koy seetaan naan ay gore moom de dof na ay gore moom de nàngam na di ko kekkantoo ak di ko reetaan dem sax ba jàppee ko seen comédien seen anti seen koo xam ne mooy seen anti stress maanaam bu ñu bëggee bëgg daal ci moom la ñuy jublu moo ne de bul xeeb ñaan gi nga koy ñaanal muy man muy yow mii di ma déglu ñaanal ko mu soppiku moo gën fuuf nga jàppee ko sa reetaanukaay mbaa nga toppoo dafa dof wérul déedéet loolu dugg nite nite kay mooy kenn ku ci ne la mu nekk na ca ne la muy def moom la concerné soo ko mënee ñaanal ñaanal ko ndaxte ku baax ki Serigne Touba dafa ni mënuma ñëpp amandoo jàmm waaye saa boo toogee nga ne ne yàlla na ñëpp am jàmm xaw ma kan waaye yow mi koy ñaan ci jàmm ngay sax te jàmm nag mooy jaamu yàlla saa boo jullee waaye waaye soo bëggee sa àq yi dox sa diggante ak say moroomi jullit di dañ del ñaanal sa mbokkum jullit yërmande suñu borom del ñaanal sa mbokkum jullit tawféexu suñu borom. saa boo ko dee def del xool sa dund ak yokkute rekk ngay am sa dara du wàññiku te ci jàmm ngay sax waaye saa booy xëy di ñaanal sa mbokkum jullit ngir mu torox waay waay waay waay xoolaatal sa bopp bu baax a baax saa booy xëy di ut lu toroxal sa mbokkum doomi aadama xoolaatal sa bopp bu baax a baax nit ku ci nekk nag nit nga te nit matul te dund gu sotteegul lu nekk da caa xaj te kuy jéggi nag du reeku lab loolu la olof di faral di wax wax ju wér la nañu wattandiku bu baax te xam ne Sëriñ Tuubaa dafa ne woon nanu bàyyi bàkku ba jéggi siraat nañu bàyyi bànneexu ba tàbbi aljana te itam nañu jug ci lal yi bañ di nelaw nelaw gu bari ndax bu ñu tàbbee bàmmeel danañu nelaw ba doyal danañ nelaw ba tonk ci nelaw ya wallahi alazim bis bu ñu tàbbee ci bàmmeel danañu nelaw ba tonk ci ay nelaw nañu góorgóorlu ci suñu digganteeg suñu borom te sàmm xàq yi dox suñu digganteeg suñuy moroom su fekkee bëgg suñu ëllëg jag suñu tayit jag kilifa yi ñuy àndal ñoom de loolu lañu dénk nañu fexe fexe ba bu ñu yoreel kenn xaq nun nag ñu ngi leen di baalu xaq te di leen ko baal di sàkk suñu borom defal ñu jàmm defal ñu dégg ak topp ndax moom yàlla moo ko wax ci alxuraan moo koy ñaan ci alxuraan moom yàlla mu ne ñi nga xam ne dañuy def saa bu ñu déggee wax ñu topp la ci gën a rafet yàlla ñu yàlla boole ci ñooña ci barke Seydina Muhammad ci barkeb Serigne Touba ak barke mag ñu baax ñi fare fii ci réew mi ak biti réew jërë ngeen jëf ci topp geeg ànd gi ci fii ci Feeling Dakar. del déglu del xool Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di am info yu leer ci people sport politique. Dakar yaa ngi Feeling